xar yi ay xaru tiaxar xar yo xamni ne nañ 50 millions xar yi dégg nañ 60 millions femelle yi ak mboté 5 millions ba ci foire bi ni ni ni amna xar yuñ ci transfert 20 millions kon lolu fokay def investissement bu toll non warna am sécurité fu am fo xamni am nga fa 100 box fa la technopole ay 100 lañ tollon bi ñuy ñëw fii xajatu fa souci bi nit ñi ñu bari daaw ñu fa ñëmé guddé ndax fimu nek dafa xaw isolé kon nak cadre dafa am solo yakarna dimension ñu bari gëna sawar ñëw fi parce que Guédiawaye dafa nekk ville bu am sécurité parce que fi ñu nekk dafa bok ci bloc administratif bi après ñu aménager ko pavé ko so fi ñëwee doo poussière do tilim do tak c'est accessible bo jaaree ci péage bi bo génné technopole ngay génné bu dee da nga joggé Kër Massar veneen bi ngay jaar ñëw bu dee da nga joggé Pikine fi ngay génné ci Brioche Dorée bi non seulement accessibilité bi mais également cadre d'accueil bi parce que même xari yu ñu yor. koo fi gis xar mu am euh, box boxam wala bergeram mu nekk am cadre bu baax day feeñ ci biir xar yi. mbokk internet ju Totem Actu ba tey ñu ngi wéy di toppal li nga xamante ni moom mooy euh, cinquième édition bi waa CEP woote fii ci esplanade bu stade Amadou Barry CEP cercle la banlieue ñoo fi woote seen cinquième édition ñu ngi ni taxaw ci box numéro 98 ki fi exposé moom mooy bergerie Al Amin agro business mu exposé bi ay sujets yu doy waar macha allah moom nag bu fi ñëwee suñu xel day dem ci lu garaaw ndax suñu xel day dem ci ba fi waa CEP woote woon bii weesu mu andi woon fi benn maal bu doy waar bu ñu doon wax Abu ah mu ñëwoon classé fii première ci wàllu agneau yi nekk euh, mâle bu nga xamante ni élevage amoon na ci yaakaar trop mais malheureusement li yàlla sunu borom di dogal rek yàlla dogal mu jóge ci foire bi ay weer lañ ci teg rek mu daanu mais nag mu mel ni ñëwul mais yable na ndax ndaanaan bii ma téye euh, su ma koy xool sama xel day dem ci Abu Terika xaw ma nag ba xam doomam la waaw wala déet suñu demee ci biir waxtaan bi sama champion bi ma dendal muy borom xalifa euh, di borom bergerie bi je pense que ni dinañ ci ñëwal bu baax a maa ngi lay nuyu. Euh, jii ñu ngi lay fay di nuyu mbokk internet yëpp di leen wax ni nañu abonné Totem di xool ku bëgg actualité élevage avec des reporters yi nga xam ne c'est des experts à la matière nañu dem Totem. Khalifa euh, daaw nga ñëwoon fi am fi taxawaay bu am solo macha allah euh, andi woon fi benn champion bu ñuy wax Abou Terika. mu ñëwoon classé fi euh, première ci wàllu agneau yi nekkoon xar bu nga xamante ni daaw euh, bokkoon na ci attraction foire bi ren nga ñëwaat fii ak beneen xar bu nga xamante ni euh, du Aboutrika mais ku ko xool day gis ci moom Aboutrika kii mooy kan. waaw baa jili kii mooy Mike Mike di doom abu Aboutrika di taawam. macha yaakaar naa daaw bi ñuy ñëw ci seb bi. juste ci la juddu. moo tax moo tax mu ñëw indi indaale douze mois. Mhm. loolu day wane nii rek. abu bàyyi na fi.

ndax nit ñi fekkee dañoo am ci yow yéene nga am xar mu nekk champion ñëpp yéene ma ginnaawam yàlla na barkeel donc ma am ci li nga xam ni loolu la yàlla dogal ma nangu ko ma bëggoon nag indi loolu mais ma heureusement kii rek laa mën a indi parce que ñooñu ay tëng lañ te buñ ñëwee dañuy déclenché. abu allah nag euh, buñ koy wax euh, moom moo jur kii di Mike mais boo ñu mënee ñëwal ci pedigree de ce fait que tey ñi nga xamante ni ñoo doon ñuy teewlu ñu mën a rappelé wu kan mooy Abou Terika. papa mu ngi tudd Alain François moom Alain François doomu macha allah papi Dieye la ak benn doomu commandant Kosso kon nga xam ni kon moom Bachir daf ci saf mais également dafa saf ci macha allah bi te ñooñu ku ci wax wax beauté ku leen wax wax yàq ku la wax également wax lumière ak équilibre surtout ñoom loolu mooy seen fort euh, euh, Abou Trika moomu nag yaayam yaayam di pël bu rafet pël bu rafet di doomu bul faale ku xam bul faale xam ni euh, doomu jibi la jiba doomu jibi séeréer jibi séeréer doomu doomu séeréer kon fi mu bokk baax na ba pare wàññeeku bul faale dañ ko tegoon ci benn sëtu sëtu bashir boo xamante ni euh, kii mooy maamam euh, nu mu tudd kee ko jur taaw taaw taaw nu mu tudd Jamil Jamil du doom Bachir direct mu jur biisu taawloo biisu kër ga mu jël biisu teg ci Euh, nu mu tudd bul faale mu jur yaayam ñu jul femelle bi teg ko ci Alain François mu jur Abou Trika te Abou Trika taaw la comme ni maa ngi nekkee taaw. Abou Trika nag comme ni ñu andalee pedigree bi tey su ne nee doomu ki nga xam ne mooy Alain la Alain nekk doomu macha allah bu Papi Dié macha allah bu Papi Dié doomu Maktoum la boo nee Maktoum sa xel day dem ci làmp sa xel day dem ci ossature sa xel day dem ci genn bu gudd wàcc xam nga dem ci aussi li nga xam ne moom mooy beauté. kon nekk na deret yi nga xamante ni yu ko composé mu ñëwaat encore ci Bachir bi mais tey maa mii tey boo ñu mënee wax moom yaayam mooy kan waaw Mike nag moom yaayam mooy Binta Binta dañoo jël doomu galactique bu jigéen rakku galactique ñu jël ko teg ko ci doomu galactique mu jur femelle ñu jël benn setu euh, Nations uni teg ko mu jur yaayam muy Binta donc da ngay xam ni kon moom doole lu dëggu la ci moom ndax ay maamam yëpp amul nekkul benn xar tuutiwu ci muy côté papaam muy koy côté yaayam. mais Khalifa tay tey ak mi nga war ko té mu outou bayam ci bergerie bi est-ce que mom tay commencé na di liggéey ci bergerie est-ce que mu ngi fay tëb. waaw maag commencé na tëb c'est vrai que da fekkone ay mal yu nga xamni ne ñew fekkone fekkoon abu tëb xar yi ñu doon xaar lolo tax sax mu yéex a tëb à huit mois 9 le, la tëbee mais tëb na fa ay femelles yu yu yo xamni manam amna ci ñeent ño xamni papa ma leen tëboon ñu am ci résultat papaam daanu ñu jël ko mom jox leen mu tëb. waaw moom tëb na fa moom vraiment. kii mooy Soxna Su. macha allah Soxna Su. Euh, yaayam doomu rek la euh, ñu jël ko teg ko ci ci Mahwa Mahwa di doomu Daraña. bo xam dañ ko jël tek ko ci doomu macha allah jey Dieye ça veut dire que kon ligne bi ñu ñun ci walu ba tay même su fekké dañu génn def immersion dem ci benen ligne mais dañuy xol xar bi nga xam dafa nekk en rapport ak suñu xar pour mu mënd di ci wat parce que dafa am ay critères yu nga xamanteni boko boo maintenir critère u Bachir critère u Maktoum muy macha allah ñooñu boo leen bëggee maintenir sa sa get même boy dugal benen xar da ngay xol xar bu laal ci ci seeni mam nga xamne ak yi nga am du du nek menace lolu tax moom euh, papam di dom ci si di set ci walu mboj parce que papam dar mamam maamam euh, dardañaa wàllu mboj jur walu mboj jur mahwa mahwa ñu jël ko dardañaa ñu tek ko ci ben ben femelle bo xam doom macha allah papa Guèye mu jur papam benen teung ngi nii macha allah kii mooy kan. Ki, ki nak moy la fille de Cash. ki moy fille de Cash moy doomu Cash Lumière mm-hmm. te wax Cash Lumière wax Moussa Ndiaye. wax Moussa Ndiaye wax Masra mais également ku ko jur nga xool ci côté yaayam mu dellu ci Nations Unies bi. ak Karkar ak moom mi yaayam mooy caatu Nations Unies. xalifa waaw kii mooy kan. ah Baye Djili kii mooy caisse noire. sa tët tët tët ba garaaw na. Baye Djili kii mooy caisse noire. kii kii baayam doom roi Bachir direct la. nga ne. maa la wax lii. macha allah. yaay ji. Mhm. surtout Zalatan la. kii. bàyyi ji li li tax ma tuddee ko caisse noire. bu mhm. naan caisse ga caisse noire la def la. mu def la waaw la mu def la cay la mu def. waaw xalifa nga teeyaat beneen añel macha allah kii mooy kan wala boog femelle ah kii mooy kan. waaw femelle bi mooy Daado. Daado nag ñaari doom Bosco ñoo ko jur. fixé la waaw foofu Birahim bi lañ ci doon dàq. parce que ñoom dafa am critères yu ñuy def yoo xam dafa bokk si suñu ligne élevage. dañuy def beauté dañuy def doole mais dañuy def hauteur kon donc. boo jëlee fekkee da nga nekk ci lignée Maktoum bi ak Bachir bi donc boo ci dugalee boobu seen normal foire bi dañoo gis ni diggante daaw ak ren mi ngi doon dox ci édition yi romb yi mais daaw ak ren bu daaw bi dafa doy waar mais bu ren bi dafa ñëw gën a làbbali te lool noonu tey suñ ko amee sa jëmm ji ci la bokk tey ban jàngat nga am ci loolu. waaw noo mais xanaa di di wax ni man volonté bi ma ci am lu mu rëy rëy te ñi nga xam ne ñooy suma patron ci wàllu liggéey buñ ko amuloon woon xëy na du sotti. parce que foire bu daaw ñu ngi ko déplacé à moins d'une semaine jëlee ko technopole indi ko fii. te yaakaar naa ni muy suma kilifa d'alors muy Aliou Sall muy le préfet Blondin Ndiaye ñom ñep weekend la len wo samedi ñom ñep ils m'ont répondu d'une manière favorable et le lundi ñu xey préfet ni ñu euh, maire jox ñu mise à disposition euh, préfet ni ñu bu ngeen ñëwé di indi lettre bi je vous reçois en même temps pour que vous puissiez gagner du temps kon ñooñu tamen man luñ ma ciy gërëm ak luñ ma ci sant mais ñoñu ñoo mom cant gi ñoom ñoo cant bi di également di remercier également le maire actuel parce que moi lim li mu fi fekk bàyyi na ko fi euh, benen bi nak foire bi li tax mu am dimension bi mu am bokku na ci cadre même xari pour ñu mën évoluer wala ñu am yenn performance cadre bi ñuy évoluer daf ci am importance parce que technopole xatna ba paré ñu fa daan goudé ñëpp dañu amoon benn souci mu souci sécurité macha allah mu ngi noonu kon mbok yi ñu ngi ni taxawon ci box numéro 98 kiko ko occupé mooy bergerie Al amin agro business ñu fekk fi suñu grand Khalifa Gueye fekk comme aussi exposé ay sujets yu doy war mais aussi tamit yaatal ak ñun ci waxtaan lo xamanteni ni lu am solo la Khalifa tay bo ñu mëne rappeler rek adresse bi manam euh bergerie bi fan la situé wu ak numéro téléphone bi. waaw bergerie nak ñaari bergerie lañ yor amna benn bo xamni fa mu dëkk fa la nekk muy Parcelles Assainies unité 3 en face poste de santé bo fa ñëwé rek.